ji jiyaa jëfatee jiyaa jëfatee sama gars yii Mister Shake la depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay doon sama gars yi côte lay doon caaxaan faaxe lii jot jot na procès Ousmane Sonko Macky Sall dafa bëgg yóbbu Sonko tribunal fexe ba Sonko du bokk ci élection deux mille vingt vraiment leur et grave leur et grave man nag xaw ma ndax patriotes yi dañuy nelaw ñu may wax ay waxu concert casserole ñu may wax ay waxu marche waaye vraiment man dama tiit dama jaaxle démb sax nelawuma nelaw bu ñuy wax parce que gént naa gént bu doy waar gént bu doy boo xam ne benn journaliste français moo doon wax ak man mu ne ma Macky Sall dara du ko jot lu dul xanaa ñu rawale ko Euh, jàpp ko tëj ko waaye ñi nekk ci ginnaaw muy général Moussa Fall ak ñi nga xam ne ñooñu bu Macky Sall daanoo seen affaire dafay yàqu ñooñu dinañu Sénégal man lola laa gént gént boo Sénégal dafa ndara takk jëppit lu waral parce que Ousmane Sonko bi ñuy jugé Kane elle est sortie elle a fait un post sur Facebook et beaucoup de patriotes qui ont été lésés par le message, n'est-ce de Gabriel Khan euh, à qui on attribue des intentions de laisser tomber Adissar. Gabriel Kahn dafa bind di wax le procès dina am le procès est acté procès bi am Adissar ngi lay ñaan li nga wax j'espère que li ngay wax c'est di Gabriel man Gabriel Gabriel Kane dafa bugg dugal seen bopp ngeen nangu procès la procès warul am vraiment dossier Adji Sarr c'est un dossier vide ñëpp ko gis complot bi dafa leer man Mamour Diallo sama xarit la maa koy défendre démb rek maa koy joyeux anniversaire tuddee Sénégal moo ëpp Mamour Diallo Sénégal moo ëpp xaritoo xam nañu ne Mamour Diallo dafa jàpp ni Sonko moo tax ñu dàq ko directeur des domaines euh, ci affaire u 94 milliards looloo taxoon mu mer daa di ba mu déggee ñu ne Sonko mi ngi dem ci Sweet Beauté mu ne xaaral ma fayu xaaral ma taxal ko waaye nag vraiment Mamour Diallo du bandi wax naa leen wax naa leen c'est pas un bandi day bandi bandi waaye du bandi bu doon bandi complot bu mel nii da koy togg ba mu ñor am ay vidéo am ay audio am numéro téléphone Sonko et cetera et loolu yëpp amu ci amul man yu amul dara dara dara ba dara booloo jeex yàkkamti gabi show parax parax parax bëgg teg pression docteur Alfouseyni Gaye oto yi jëli al aji saar loolu yëpp gis nañ ko loolu ku mu doy la mooy day ñu génneel la audio boo xam ne Mamour jàll dafa toog ak aji saar di wax yëmatuñu foofu MC Niass aji saar génne ay audio yematuñu foofu Ousmane Sonko génne rapport gendarmerie pap Alé Niang faram fàcceel ñu ko bëri na preuve yi bëri na bëri na loo xam ne maam maa xam Diallo dafa war a jël cas bi mu teg ko ci suuf mais mi ngi insister parce que ñu bëri di wax naan Akhenaton maa xam Diallo juge bu baax la ak dugg na fi génn génn na fi balaa ñu xam ne juge bu baax la affaire bi mu ne lii yëfu caaxaan la mu def non-lieu mais Gabriel Kane fan la jëlee information ne procès day am bu mu bind la procès acté parce que moom dafa am ay sources Macky Sall recevoir na ko fu temps yi New York moom c'est vrai que faalewul Adji Sarr business bi ma xaalis lay ut tey bu bu ko leeroon Adji Sarr day wàcc day daanu mu bàyyi Adji Sarr gis nga moom moo ñu génneel maître El Hadj Diouf n'est-ce dafa def lii dafa def laa mais day matt di ëf fi mu nekk dafa bu dugal ci bopp patriote yi ne dem pa euh, procès lu baax la waaye dinaa la wax benn affaire man may njaago Sonko Sonko bu demee procès yàqu na procès ba mënu fa jëlee ndam procès bu fa demee dañ naan yaa def kenn du ko tëj moom mais dañuy fexe ba du bokk ci élection yi léegi bu boobaa lan mooy am da nga yaakaar ne nii dañuy génn di taal di xeex déedéet yaakaaruma ko Ousmane ko xëy ne moo war a jël responsabilité waaye fi mu nekk nii est-ce que c'est pas trop tard parce que fi mu nekk bu ko Macky Sall woowee tribunal procès mu ne demuma dañ koy tëj ci loolu condamné ko ne yow outrage à magistrat wala yu ma xamul ne ko doo bokk mais pour man est-ce que loolu sax gënul nga dem procès boo xam ne boo fa demee mënoo fa jëlee ndam vraiment l'heure est grave dégg naa nag dafa manifestation la 30 mais manifestation nekk fi di yuuxu di mais Macky Sall wu leen xam nga ne yu fi nag la leen dul Macky Sall dafa commencé muus bu njëkk ba Macky Sall doon përëx përëxee mais léegi Macky dafa patient li muy def ndànk-ndànk la koy def xam naa ñu ko wër ñoo ne ko i faut nga def ndànk mais preuve profito ne da ngay jàpp Sonko loolu moo taaloon réew mi nañu def ndànk 30 décembre ngi ñii ñeenti fan na ci des yaakaar nga ne Macky Sall dina def discours di wax waxu 3e mandat ana mola mo gën bo lu joggé di jël mola mo gën tap ko ci kaw melne mom mo gën mo ëpp nit ñi xam xam mola mo gën mo ne Macky Sall dina def 31 décembre gaay ngeen bal ma dafa am ben euh, annonce bi ñi def dafa ne woon euh, dafa ne 31 euh, décembre Macky Sall dina wax ne day def troisième mandat profito nak ci si suba ci mu génn len làmb Balla Gaye euh, nu mu tuddati Boy mais vraiment lolu kou lako wax kou lako wax xamal waxu la dëgg gis nga 31 décembre dina ñëw ba ba dem concert de casserole la ñuy wax la ñuy def est-ce que Macky Sall sax dina def discours wax jëpp loolu la a fi nekk di wax ay concert de casserole Macky Sall faalewul concert de casserole combat bi du ay casserole ay yu ma xamul vraiment ñun Ousmane Sonko mu ngi commencé décevoir combat bi xam nga mooy lan Macky Sall daf la bëgg taqal yóbbu la procès ñu nekk fa Adji yaa ko def lii yaa ko def lee procès public ñëpp di seetaan yaa def lii Adji Sarr yaa def lii Adji Sarr mujjantal bi lan la yaa def mujjantal bi yaa def kon bokkuloo ci élection léegi bu boobaa nit ñi lan la ñuy def da nga yaakaar dañuy génn di taal sénégalais duñ taal sénégalais tant que jàppuñu Sonko dugal ko ci kaso bi doo dégg sénégalais bu génn naan day xeex pour Sonko mënuñu ko Sonko ci boppam moo bëggatul xeex bëggatul xeex léegi ay concert casserole la ñuy indil kon léegi Macky Sall lan moo koy kere mu ne day day fexe ba sonkoo du bokk comprendre man daal li ma leen di wax rek mooy euh, euh, ne Mollah Morgun 31 décembre dina ñëw ba dem Macky Sall du wax waxu troisième mandat du ko wax. day fexe ba éliminer Sonko ba Sonko bokkatul après moom mu xool lan la lan lay def mais vraiment man instant yi tiit naa xamuñu nag Sonko lan lay def gis naa ne def nañu benn conférence de presse dafa mel ne jotaguma ko déglu mais sonn nañu ci yeewu askan bi toog di wax mbele mbel mbel mbel di wax Macky Sall jàpp Pape Alé Niang tëj jàpp nit ñi di tëj di dérouler di jël Maham Diallo teg di jël euh, euh, euh, Badio Camara di def lu ko neex yéen ngeen nekk fii rek di di di di menacer man nee naa leen. bu dee bëgg leen xeex ci terrain bi jàmbaar loo am sénégal takk loolu kenn bëggu comme yéen bëggatu leen loolu mais kon jéem leen ngeen négocier ak Macky Sall lah, bokk ngeen wax ko mu jox leen nguur gi en échange bu leen ko def dara mais Macky Sall mi ma gis jënd ay gànnaayam teg ñun ah, ñuy dellu ginnaaw rek du dellu ginnaaw rek ngeen may wax ay Mola Morgan Mola Morgan daf fi mën a jëlee Macky Sall nekk ci ci ci ci ci internet bi di saaga munoo sax tax taxul sax ñu génne ko papa Alain Niang loolu jëmewul Sénégal kanam ay rappeur yoo xam ne dañu war a xeex askan bi di xeex pour seen poste di dem Macky sàll di leen recevoir ak lanati ay nit di topp Wally Seck ah concert topp série yi mais Sénégal du dëkk boo xam ne dëkkul làppoto la sëriñ yi neutre seen yoon nekkul ci dara Abdou Bara Dolly gis ngeen ko fi mu nekk nii mel na ku bëgg bàyyi Sonko dem ànd ak Macky Sall sëriñ yi seen yoon nekkul ci dañuy toog di seetaan kon man li ma leen di wax rek gars yi mooy ne en tout cas man procès bi tiit naa ci trop trop trop trop trop trop euh, que ne Sonko bu ci demee ah dina daanu waaye léegi lan la ñu war a def dama leen di laaj wax leen ma est-ce que Sonko dafa war a wax demuma procès est-ce que loolu la war a wax mais man Sonko bi ma xam bu buñ ne ko da ngay dem procès day dem procès vraiment te vraiment loolu humiliation la loolu defet la ci ñun patriote yi te Macky Sall mi ngi am ndam ci ñu ci ñun te Sonko ci boppam moo ñu ko waxoon bu ñu sàgganee Macky Sall dina jaar suñu kaw 2024 mu sant sant mu toog fi kenn du ci mën dara waaw man daal vraiment man xamatuma léegi man man xamatuma mais nag ko mooy suñu président ñun ñu ngi koy déglu ñu ngi koy déglu bu ñàkkee fayda ba Macky Sall écarte ko mais loolu boppam la ko def ah. waaw man man monsieur Cheikh vraiment man dama commencé découragé parce que dama gis ne depuis euh, euh, marche euh, bañ leen nangu bañ la Macky ba mu leen xañee Euh, député bi depuis boobu laa gis ne Sonko dafa changé stratégie bëggatul jàmbaarloo bëggatul xeex nit ki nag jënd ay gànnaayam teg nga ne bëggoo xeex ak moom kon léegi nan ngay def ba jëlee ko fi comme bëggoo ko fi jëlee nag jéemal nga toog nga négocier ak moom man daal loolu mooy sama xalaat gars yi wax leen ma lan mooy seen xalaat laaj leen partagé la abonné leen message ba leen defal leen vidéo vive le président Sonko vive Yewwi Askan merci